ñu ngi ziyaar ñëpp di balu ñëpp ak ci weeru koor wi ak ci fukki fan yi nga xam ne ci lañu nekk muy fukki fan yi njéggal yàlla nañu yàlla boole ci jaam ñi muy jéggal euh, mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am comportement yum ñu jàngaloon ni jullit bu baax daf koy comporté woo su bëggee dem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na bi mu ca waxoon ñu jële ko ci abdullahi ibnu mas'ud radiallahu anhu qaal qaala sallallahu alayhi wa sallam istaxyu min allahi xaq alxayaa qulnaa yaa rasulallah inna nastaxyi walhamdulillah qaala laysa dalika walakin alistixyaau min allahi xaq alxayaa an taxfida alrasa wa maa xawaahu walbatna wa maa awaa waltadkur almawta walbalaa wa man araada alaaxirata taraka diinata addunya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neewoon na na ngeen am kersa ci seen digganteeg seen borom dëgg-dëgg kersa ga ca war ñu laaj ko ne ko yow mi yàlla yónni ñun am nañ kersa alhamdulilah ñu ngi sant yàlla yonent bi ne du ni ngeen ko jàppe mooy kersa déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kers sa dëgg ci diggante nit ki ak boroomam mooy na fexe ba wottu boppam bi ak li ko wër bopp bi ak li ko wër nag bu ñu ko waxee mooy nga góor góorlu ba say nopp bul ci déglu lu xaraam nga góorgóorlu it nag ba li ngay déglu ci alxuraan ëpp li ngay déglu ci musique nga góorlu ba li ngay déglu ci laa ilaha illallah wala salaatu ala nabi ëpp li ngay déglu ci caaxaan waaye bu ci yam mu ne na nga góor góorlu it ba sa bakkan bi bul ci di fóon xet gu la lewul nga góorgóorlu it ci sa làmmiñ wi fekk ko ba doo ci wax lu la yóbbu safara loolu noonu la ñuy fege bopp ak la ko wër mu ne waaye bu leen ci yem ngeen ngeen ngeen fegaale seen biir yi ak li ko wër biir nuñ koy fege mooy da ngay fexe ba doo ca dugal lu neexul yàlla waaye dangay góor góorlu it ba liy wër biir bi muy sa awra bul ko dugal fu neexul yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku rus yàlla dëgg nii lay doxalee digganteem ak boroomam yonent bi ne bu leen ci yemit nag dee leen bari lu ngeen di fàttaliku dee ndax bi ñu ko laajee ni ko man ak man ak yesu naas daf ne aksaruhum lil mawti zikran bi ñu ko laajee ni ko yow mi yàlla yónni kan moo gën a yeewu ci nit ñi daf ne ki ëpp li muy fàttaliku dee moo gën a yeewu euh, fàttaliku dee nag mooy xam ne am na foo jëm te dafa am loo fa war a yóbbu noo tër ba du neex te tëraay boo xam ne da fa tëdd lu ëpp li nga dund boo fa yóbbaale wul loo dundee du sotti moo tax yàlla dañuy wax ne daf ñoo indi ci fuy jeex daf ñoo indi ci fuy jeex ba noppi ñun ñuy jeex mu lëggéeyloo ñu fi lu dul jeex dañuy wax ne boo waanewul boo moytuwul rek sa lëggéey du dem waane gi nag mooy dangay fexe ba liñ la sant nga di ci dolli yeneen yu baax muy nawaafilul xayraat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne na baril ku bëgg àddina ku bëgg àllaaxira na nga bàyyee àddina noo koy bàyyee mooy euh, li ngay wut ci àddina fexe ko wut ba am ko soo ko góorgóorloo fexe ko ba am ko ci yàlla moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa daana wax ni imal li dunyaaka wa amal li axiratika wax ne lëggéeyal sa àddina taarlu ci bam ku la gis day defe ne yow mii danga fi sax ba faw waaye nee na na nga góorgóorlu it ci sa àllaaxira ba ku la gis defe takk nga say bagage suba nga war a dem doomu aadama noonu lay dunde te loolu mooy rafet njortu dëgg nag moo tax mu dellu waxaat ci beneen xaddis ne ida lam fas fasna ma sita boo amul kersa nee na defal lu la soob parce que kersa ci la nit ki di amee yàlla jim bëgg am dëgg euh, beneen bi ci des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni inna rabbakum xayiyun karimun yastaxyi min abdihi ida rafaca yadayhi ilayhi yadcuuhu an yuradduhuma sifran laysa fiha sheyun sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla am na kersa ca jaamam bi te buur bu tedd la ëppale na boppam ab jaamam tàllal ko loxo yu vidd yu deful dara ñaan ko toroxlu ci kanamam yàlla delloo la loxoy kese nee na yàlla ëppale na boppam loolu te mbokk yi léegi ku seetlu ni jamono ji demee dafa mel ni kersa dañ ko gën a wuñ wuññi te ñi mu gën a ñàkk ci ñoom mooy ndaw ñi waaye ñi mu gën a ñàkk ci ndaw ñi bokk na ci mooy jigéen ñi mbokk yi jigéen ñi moom dafa mel ni kersa dañ ko jël teg ko nële boo xoolee ba ci seen comportement seen mode d'habillement ni ñuy solo sax da ngay xam ne góor ñi ñemewuñ koo soloo ah, te lépp dara waralu ko nag lu dul nag dañu nekk rek daanaka ci jeexitalu jamono bokk na ci li gën a jafe léegi bokk na ci muy crise de valeur nit ñi amatuñu valeur xamatuñu lu ñu teg cosaan amatul aada amatul ya xewoon yépp daal daanaka xale yi xewil nañ ko ngir ñàkk kersa yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu